ارتجى قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى هجى قلبي من خيال قد سرى بسم الله الرحمن الرحيم wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam allati ursila rahmatan lil alamin wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim rabbana atmim lana nuurana waxfir jara'imana warham mawtana wastur uyubana wa yassir umurana waftah lana abwaaba taysir wa tawfiq fi dunya wal axira ya rahim ya rahman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Euh, xalifa bi ñoo ngi lay nuyu alxaaji Ousmane di ñaan yàlla bàyyi la fi yokk sa wér defal la jàmm guddal sa fan ci barkentu salaahu di nuyu alxaaji Bachir mi nga xam si mooy porte parole kër gi ak njabootu maam alxaaji Rawxaan Ngom yëpp te dinaay wax ci samay waxtaan lu bëree bare njabootu maam alxaaji Rawxaan Ngom man ci li ma jàpp gëm ko mooy ñi sant ngoom ñoo ci gën a tuuti kon njaboot gi yaatu na yàlla na yàlla fayal ñu ko yiw ci biir loolu ci lu ñu leen di ndokkeel ci gàmmu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne si ci la yàlla dëgg yërëm mbindeef yëpp wàcce ay xéewal àdduna ak àllaaxira yàlla nañ ci yàlla boole. Euh, ci biir loolu nag euh, ñu am mbégte lool ci loo xam si xaar nañ ko ay weer yu yàgg mooy usmaan sonk mi nga xamee ni si njabootu maam Alxaaji Rawaan Ngom la ñu gis ko ci ëttu maamam ci diine. ci ëttu ci ci ci gàmmu wala yi nga xamee ne si moom mooy cérémonie yi nga xam si wàllu diine la mu nekkoon lu ñu yitteel ay at ñu doon ko sàkku ci moom. tey nag mu becc bett ñu xéewal goo xamee ne si mooy mu ñëwee fii nii mu fi ñëwee ak délégation bi mu àndal di la wax ni ñëw nga sa ëttu maam maam Alxaaji Rawaan Ngom ñu bare nag waroon nañu bu ñëwee fii ñu leeral moom naka la nekk njaboot maam Alxaaji Rawaan Ngom ku nekk xam na ni euh, Yuqum ngoom moom moo jur Aale Ngom. ak Baara Ngom ak ku ñuy wax Sanu ngoom moom mii Mamadou ngoom mi nga xamee ne si moom moo jur yaayam di ajaa Xadi ngoom kooku moom mooy maamam. daanaka boo xoolee moom moom mag ak moom ak maam Alxaaji Rawxan Ngom njaboot gu jogoyoo la goo xamee ne si lu neex a neex neex wax la lu neex a lu neex a la kon tey ñëw nga sa dëkku maam ñëw nga ci bis boo xamee ne si maam Alxaaji Rawxan Ngom ak maam Alxaaji Malick ci fii ci sant Alla Ngom ci lu ñu bare xamul foofu lañ ko jëkkee màggale seen yaay suñu maam maam xaw ajee rayal leen ganaar at ma ca topp mu rayal leen bëy muy door a nag tas ci diggante ndar ba li ko yóbbu waalo yóbbu ko Tiwaawan yóbbu ko Dakar yóbbu ko fu ne kon tey ñoo ngi ci bis boo xamee ne si bis bu maam alxaji Rawane Ngom la di la wax ne nag fii nga ñëw bare nga fi soppe bare nga fi ñu la bëgg bari nga fi ñu la sopp di la jàppale bari nga fi ñoo xamee si ñoo ngi def lu ne ngir mission bii nga xamee ni si yaa ko nangu jëlal ko sa bopp yàlla dogal Sénégal yi ànd ceeg yow mu nekk loo xam si ñun ñëpp ñoo ngi ci gis suñu bopp ndaxte boo waxee ñu gis suñu bopp ci yow boo doxee ñu gis suñu bopp ci yow boo doxalee ñu gis suñu bopp ci yow kon ñoo ngi sant yàlla ci yow di wax ne nag délégation bi mi ngi ànd ak euh, Modou mbenn mi nga xamee ne si moom mooy coordonnateur départemental bu Saint-Louis ak Adja Yacine Samb mi nga xamee ne si moom moo jiite jigéen ñi ak ñaa bi nga xam si moo jóge lebar ma loo nga xam ne moo jiite Fass ak Aline Dieye mii di doom Baye Assane xam ne moo jiite Paal ak Abba mbay nag mi nga xam si moom mooy honorable député bu maam Alxaaji Rawane Ngom bu maam Abba mbay mi nga xam ne sii moom grâce à moom ci la Paal jëkk amee député muy Adja ant Gaye ci ànd gi mu àndoon nag Abba mbay ndaxte Abba moo gañe yóbbaale ko kon Abba ñëw nga sa dëkku maam ñëw nga sa kër maam ku wax Baye Abba Mbaye wala maam Abba Mbaye xam ni ma a wax ba ni barke alxaaji Rawane Ngom booy bul nga si nga xam ne dina ko def yal na yàlla fayal ñu ko yiw suñu bàyyi goor day wax ne li mu def ci jumaa ji buñ ko dindi woon fu bari dina wét kon abba ñëw nga sa kër muy ku ñu xamanteel nag ku ñu jàppanteel seq yu bare bare abba yàlla na yàlla fay la yiw assemblée nationale bi ngeen dem askan wi wóolu leen yóbbu leen foofu yal na ñun ñëpp ñu dem ba ni iskay alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin wa azka salawaati rabbi wa asfa salaamihi wa an ma barakaatihi ala xayri xalqi xabibi rabbi sayidi rusuli imaami anbiyaai mazhari lutfi ayni rahmati sayidina wa mawlana muhammadin sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa ashaabihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim wa radiyallahu taala an ali beyti wa an xulafaai rachidin wa an alsaxaabati ajmain wa an adduaati walmuallimina walmurabbina walawliyaa wa saalihin رضي الله تعالى عن مولانا أبي العباسي سيدي أحمد التجاني الشريف الحسني الفاطمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن جميع خلفائه وأتباعه وأحبابه رضي الله تعالى عن خلفائه مولانا الشيخ محمد الغالي رضي الله عنه مولانا الشيخ حاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه مولانا الشيخ عبد الرحمن مم الفاهم يرو رضي الله تعالى عنه مولانا الشيخ سيد الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه مولانا الشيخ سيد الحاج روحان قم رضي الله تعالى عنه وأن كافة الأمة أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci ndigalu alxaaji Ousmane Ngom mi nga xam ni mooy xalifab maam alxaaji Rawxaan Ngom wuufal ka njabootam gi taxaw ay taxawaay yi mu daan taxaw ci diine jéeg ci tariqa bi ak ci bokk geeg ci réew mi lay yëkkatee ay nuyoo di ko jëmale ci ganam gu tedd gi président Ousmane Sonko sëtam sax laay wax nag dana gën a leer ak ganam gii nga xam ne moom itam doomam la honorable honorable député Abba euh, Abdou mbay doomu Abdou mbay doomu alxaaji Abba Mbaye doomu alxaaji Rawxaan Mbaye euh, maamaatam maam alxaaji Rawxaan lañ ko tuddee xam ngeen kon loolu yàgg na lu sama maamaat kon dafa xaw mel na ñoom ñaar kenn ku nekk mën na dalal moroomam ci keppaaru Mawlana Cheikh Seydi El Hadji Ousmane Ngom ndax cir bi ñu am ci dëkk bi am ko ci bokk gi président Ousmane Sonko ci bokkam la ñëw bokkam kenn ëpp ci soxna Xadi Ngom tudd na ko léegi kenn ëpp ci soxna Faatu Ngom tudd ko eh, maa ko tudd soxna Biti Ngom maa ngi fàttali sa tànt bi nekkoon Ndar te mu mel na moo doon sa tuteel mu tuddati ah day Faatu Ngom ak déer am na keneen ki nekkoon doon jàngale te la woon sax. ah euh, la Baara Ngom jël nga ko waaye ñun ñu itam ci Baara Ngom lañ jóge ndax dañu naan Baara Maram Boy kon dellu nañu dellu nañu ah dellu nañu ngay ngay déedéet dellu nañu mengey boy loolu moo lay xamal ni kon yow euh, département bi ci nga dëkk. région bi ci nga dëkk baara euh, maram booy moomu moo la meññ moo ñu meññ mosuma gis mukk sa tante bi ci sàllalu ma du sa woy jur wi soxna xadi du soxna faatu ngoom ku ma ci wax papa rek ba ci soxna Ayda mi gënoon féeteeg yow maam rek kon loolu ak derit la Alaaji Abba turandoom li may wax lu historique la wax na léegi ni ñoo ko suul ca penku jumaay maam alaaji rawaan ja nekk ndar te foofa maam alxaaji rawaan radiallahu taala anhu comme que jàppoon na ni faatu mën na ko fekk ci waxtu wu nekk ci barab bu nekk fu mu fu mu mu fa nekk rek ne ne bu ma faatoon nañ ma suul fii foofa nag benn barab la yoo xam ne joxoñoon na ko ni bu ma faatoon nañ ma suul fii foofu la ñu suul woy ki jur baayam muy alxaaji Abba alxaaji Abba dafa am ñaari rawda yoo xam ne ñoo ngi tàbbi ci biir jàkka léegi te nekkuñu woon ci biir jàkk Mawlana Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu ba bi Mawlana Cheikh El Hadj si di nekk xalifa fi ñu ko dencoon tàppaat la waaye keroog ca dëj ba ca la way juru sëriñ bii di Mawlana Cheikh El Hadj Mouhamadou Lamine Ngom ni ñetti nit ñetti ñetti mbir li fekk sama borom mottaliwu ko samay nelaw dootul doy bu njëkk mooy xilaafa Abdou Aziz gi taxaw Abdou Aziz la doon wax maa ngi jégalu ci noonu ndax magama te ah yombul woon nag ñaareel bi li fekk jagsaaw demul ci dikk waka alxaaji Malick bàyyi woon noonu la ko doon waxee ñetteel bi moo tax ma jël lii di ko ci dugal mooy li fekk tabaxuñu zaawiye bi bu cheikhul xaaji Malick tabbi ci biir lu nekk daj sëriñ bi xam na ci dara Mawlaana Cheikh Alxaaji Mouhamadou Lamine demoon na ba mujj sax amatul fami day topp dëkk bi Sénégal di taxaw taxawaay yu wóor ba fu muy demee nag li ci ëpp bare mu muy ànd ak Mawlana Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ba zawiya bi taxaw maa ngi nettali sëñ Ousmane xam naa moo ko gën a xam wax ndax wax na ma ci leneen après dama ciy waxtaan nii Al Hadj Moustapha Diop mi nga xam ni soxna Asietu si mooy yaayam Cheikhul Hadj Malick di woy juróom bi ma ko nettalee ñett yi mu ne ma Bachir kaay ma wax la ci loo xamul mu ni ma keroog bi jàkk ji mate Cheikhul Xaaji Malik nekk ci biir jàkka ji ñu defar ko ba ñu lépp a yemb na mu ne ma sama nijaay alaaji Lamine dafa yéeg ca sooroor ba ca kaw ca Tiwaawan trois heures de matin mu nodd nee na ma xëy di ko andil kafe moom nag baat baat ba dafa neexoon Mawlaana Cheikh Alxaaji Mahamadou Lamine baat ba neexoon na lool mu ngoog nee na bi mu ko andilee café gi ni ko nijaay nodd gi neex na mu ne baa jàppalu leen noddu noddu yeete la mu ne ah noddu gi bu dul noddu yeet lu mu doon mu waxtoo kenn du ci yee kenn noddu sant yàlla la li ma ciy dugal foofu nag mooy alxaj ba Mbay fii ci jàkka ji la taxaw te kàddu gi yaakaar naa ni ma res na ko mën a vérifier ndax bokkoon na ña ko fekk ñuy dund te bari nañu fi la taxaw fii si jàkk ji ñuy laajal pour defar jàkk ji mu ni man jàmm dootuma ko am mi fekk Baye El Hadj Rawane tàbbaluñu ko ci biir jàkk ji defal ko lu ñuy defal Cheikh El Hadj Malick kon loolu dama jëllalee askan wi nga xam ne booleel na la ak maam El Hadj parce que diggante Toubé ak Waalo ba jéggi guyu Mbodj fi région Saint-Louis am amul kenn ku fi man tagg boppam juróom-ñaari maamam. te dajewul ak maam El Hadj Rawane moom moo ko wax nee na barab sàngam ba barab sàngam te jéggi na waalo ku fi tagg sa juróom-ñaari maam te dajewul ñu dëkkoo fi kooku kon sa waajur sa baay sa maam sa turandoo taxawaay boobu la amoon ci maam El Hadj ak taxawaay ba nga xam ni mooy jàkkay ndar ja ak ziyaare Faas keroog bi nga xamante ni. ku tedd ku baax doon sonn ci kër gi lool le ministre Assane jaañ di sëtu moom El Hadj nit nag nekkoon ca Baba Garage bi mu faatoo waa kër gi jàmbat ni ñun de ziar bi ren dana doy waar ndax depuis ci jamono yi maam Baye Alxaaji Mouhamadul Xaafid Assane Diagne moo doon financé ziare Fass danaa wax ñaata la ziar bi doon nañ ma joxal dañ ma wax na muy toll budget bi ni muy toll ma jox leen ko ñu ne kooku nag moo dem ñoom ñii biñ ko déggee ci njiital baayam bi ko yar di alaaji rawaan mbay encore di doomu alaaji abba turandoom mu ne loolu jël nañ ko en sarge ba ziyaare Fass bi weesu la ñu warloo woon ni daañ ko def dara manqué wu ci te bokkul ak lañ cay def gannaaw bi kon yow mën ngaa dalal ku nekk euh, président Sonko bu ñëwee paal kum fi dajal bokk ma ndax maam El Hadj Rawane mu meññi ñëpp li may gën a neex nag te nga feddaliwaat ko mooy ñëw nga fii wax ni man de yoon wi sa dëgg-dëgg bu ma sañoon yoon mu fi ñëw rek mu nekk yoonu mbokk ndax dox tànki mbokk boobu da nga doon jaale si sa beneen maam bu faatu woon mooy xalifa bi fi jógee sëriñ bi toog mi Aji Sëriñ Lamin nga ni man danaa fii ñëw ay yoon waaye jéem naa jéem yoon wi bañ am lenn benn couleur politique naw naa la ci dem say bokk tuy benn couleur politik te mooy sa yoon tey wii wax nga kot nag ndax wax nga ba mu jeexal xëy na tuddloo lenn loo xamante ni mën nañu wax ni danga nga bëgg a te kooku boo ko fi doon def kenn du la déglu wax keppaaru sëriñ bi moom sa dëgg dëgg dëgg li ñu fiy def rek mooy yàlla Mamadou Xajarawaan sa maam Mamadou Xajarawaan sa maam li mu doon def mooy képp ku jaaxle koo mën a doon danga koy ñaanloo mu ñaanal la tegtal bi mooy dem na tëngéej daja faak maam alxaaji Mor Xuja si radiallahu taala anhuma bay alxaaji Mbay Baasin wax ko Maurice Guèye ni ko sama nijaay ñoom dañ fi ñëw bi sàngam mu defal leen teraanga yu rëy rëy boole ca ndekki lu foor mu ni ko nijaay ñoom ñëpp wuyu mu ni Maurice mii de lu nekk lay daj ci nun lu nekk lay daj ci daara ji dafa bugg a ñaan waaye dafa bokkul ci nun lu mu bëggoon wax maanaam du jullit ñoom ñaari ñu doo wax ni ko moom na wax li mu bugg rek ku sama nejaay ñoom ne ñu nga wax li nga bugg mu ni man daal eh bien li ma bëgg lenn rekk la mooy dund ci nguur dee ci nguur waaye yaakaar naa Maurice ba keroog ñu koy dugal ci bàmmeelam maire honoraire la loolu nag ñaan da ca rax jukkoo ma nga ca taxawaay ma nga ca waaye ñaan da ca rax li ma bëggoon wax rek mooy maam alxaaji rawaxaan ku fi mas ñëw ñaanal la la sëñ bee ma gën xam loolu ndax bayam nett na ko ñaan goo xamante ni ñi fa jiitu woon Senghor ñëw nañ ci maam Alaaji Rawaan sàkku ñaan wax a wax mu jaaxle ca la ñuy wax gaa waaye teewul mu ñaanal leen Senghor ñëw na ba fii fekk fi baayam wax a wax a la jaaxle jaaxle na ca la mu doon wax ni nan lay defaree àdduna bii yàlla defar ba pare yàqal ko boppam waaye teewul mu ñaanal ko kon bu ngeen ñëwoon te bokku leen féetam ñu ñaanal leen kon ngeen jàpp ni ñaari ñaan mooy ñaanu njaboot ndax yéen a fi bokk ak ñaanu ku ñëw bokk ak sëriñ bi li nga xam ni moo gën a foor ci li ko fi maam El Hadj Rawane bàyyil El lim na ko léegi ndax bis bi képp ku mu neexul naqadi na la wuyu leen ma gàmm ku mu neexul waaye naqadi na la képp koo xam ne naqadi na la nag Seydina Muhammad soof na la sallallahu alayhi wa yàlla buñ ca bokk. boo demee téere bi ñu tuddee kitaabu mawlit da nga ja fekk lu nekk ñu def ko ci gàmmu bii boroom xam-xam nee na waxtu woo xamee ni mawlidu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jot na nga xotti yére yu bees ngir bég yàlla jéggal na la say bàkkaar ndax bëgg nga bëkki seen moo toll noonu nag sallallahu alayhi wa ndax képp ku mu gënalul sa ndey ak sa baay sa imaan kenn validé wu ko Seydina Muhammad ku mu gënalul sa ndey gënalul sa baay gënalul sa bopp gënalul la sa alal gënalul la sa njaboot gënalul la sa lépp sa gëm-gëm sa imaan kenn validé wu ko nit nag bu tolloo foofu ci yow cofeel gi farata la ci yow kon bu sëriñ bi di dundal loo xam ni comme alaaji Amadou ni mu ko waxee ba nga xamante ni moom alxaaji rawxaan ak moom alxaaji malik radiallahu taala anhum ànd nañu ñoom ñaar te kenn dencagul ànd nañu ñoom ñaar te kenn dencagul ñu ànd di màggal ganek àdduna sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu di ko def ba yàlla dogal muy dem njarnde yàlla dogal moom mu yóbbaale gàmmoom waaye fekk na boobu maam Cheikh Sidi El Hadj Roxaan ma nga sanc Ali Ngom ba mu demee Tiwaawan gàmm narayaatu la wax ni kon kat yow da ngay faf toog paal di gàmm mooy 1910 bi nga xam ni moom ñibbisi na fi mu ne da ngay fafa toog paal di gàmm mu montindee sëñ Birahim Diop borom xam-xam bu rëy ba ca ndar nga xam ni ku fi xalifa général ci at yi weesu laa la wax tijaan beek murid beeg xaadir bi amul kum ci jàngalul te maa ngi tàmbalee ci Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy ñoom ñëpp jàngal na leen dafa benn téere bu mu def bu mu defar tudd ko fatul Ixwaan téere boobu daf ciy wax Cheikhul Hadji Malick yan manaqib la am ba mu paree mu wax njabootam gi bay wax ni gis naa xilaafa maanaam leeru xilaafa mi ngi mel xat ci jënnu ci ci jiwu Cheikh Mouhamadul Mansour maa ngi koy gis mu ngi mel xat ci jiwu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy maa ngi koy gis muy mel xat ci jiwu Cheikh El Hadj Mouhamadul Habib. waxoon naa ne leen na ngeen ko jox rawaan mu ne ah tool mu ne kon demal nga jox ko rawaan ah fekk boobu Cheikh El Hadj Malick wax na maam El Hadj Rawane ni ñu ko jëli sama baay la yabaloon muy ma la Cheikh El Hadj Mouhamadul Amin mu dem góor ga gantu. li rek loolu nag lu jar jàngat la ci jamono ji Tiwaawan rek li ma yore Tiwaawan rek mu dem Cheikh Al Hadj ni ko delloo ko jox ko rawam junj la waaye nag ndax daañuy comprendre jinjo yooyu le doomu aadama dana jàng ab livre ba mu jeex mu xam ni lii lañ ca wax waaye lan moo nekk ci diggante bind yi diggante baat yi diggante chapitre yi nan lay takkee nan lay génnee résultat yoo xam ni bokkul ak la ca borom doon bind waaye moom moo ko génnee boppam analyse yooyu njariñ yooyu ku ko mënul dund ci waxi mag ñooñu ci waxi bokk yooyu ci wax wali yooyu sa mbir du man sotti sa digganteek ak ñoom kon bu ko defee maam alxaaji rawxaan féete ko fii moom tey tamit yoreel maam alxaaji malik si radiallahu taala baat euh, zahiram maa ngi dégg ci sëriñ ba maolaana cheikh alxaaji ousmane muy wax ni dégg naa ki tamit alxaaji Abib Ngom xalifa bu tedd ba mu ni Mawlana Cheikh alxaaji Rawxaan nee na sama sëriñ ba alxaaji Malick dund nañu maag moom ba mu jóge fi man mosuma bugg mel na moom waaye moom it mosuma bugg gën seetal loolu loolu jarul jàngat dund naa ak sama sëriñ bi ba mu jóge fi man mosuma bugg a mel na moom waaye ma mosuma bugg gën xanaa ñooñu ko dañuy nekk benn mooy li nga xam ni xalifa bu tedd ba ca Tiwaawan yàlla na ma yàlla may ko wér moom itam Mawlana Cheikh Sidi Aboubacar ibnu Arif billah Mawlana Cheikh Alhaji Mahmoud Mansour li muy wax ni maam Alhaji Malick ak maam Alhaji Rawxaan dafa mel na daal benn ndimo dafa dafa ko wax ñoo ngi toog maak moom ci néegu biiram yàgg na boobu maa ngi soog a ñibbisi mu ne dañu ne ñoom ñaar euh, ndox la ak soow wala suukar ak soow bokk naan wala bokk tur mu ne déedéet pexe àgg na ci ndox mu am xorom ñu dindi ko ndox mu am suukar ñu dindi ko te seen ñoom ñaar seen ànd kenn mënu ko dindi yàlla mi ko defoon dong moo koy sàmm kon dañ doon bëgg a wax ni Paal ak gàmmoom gàmmu cosaane la du gàmmu moo tax Mawlana Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy radiyallahu taala anhu ca gannaaw bu muy wootee ni képp ku aju ci Tiwaawan na ñëw gàmmoo si Tiwaawan waaye ca saasa la ci paal booba jamono yaakaar naa Baye Alhaji Mahamadul Hafiz moo fi nekk ah. 1985 1985. 81 man booba fekk na juste maa ngi soog a jàngi maa ngi ci àllam. bu def bu defaat déclaration ni kàddu yooyu ma yëkkati woon kët sama kër bàyyi alxaaji rawxaan bokkuñu ci ndax alaaji Amadou wax na léegi seen gàmm gu yàgg di yàgg di yàgg ñu bare defe nañu seen première gàmm ca ndar la ca pomba déedéet kooku mooy seen gàmm officiel ñëpp tekki seen bët waaye ñaata yoon la ñu ànd ñoom ñaar di gàmm ñoom rek ci seen alquran jooju at mu nekk ki jàng bo euh, téere kaw bi ki jàng téere suuf bi bu déwénee ñu inversé seetal ànd bi euh, ñu nekk ci loolu muy ànd bu yiw bi ànd bu sell ba mu ñëw kon looloo tam waa Paal war nañu jàngataat auteur bi nga xam ni moom la relation yooyu am waa Tiwaawan war nañu jàngataat auteur boobu nga xam ni moom la relation bi am ndax du mu daw Mawlana Cheikh El Hadj Rawhan radiyallahu taala day wax tabaski bi nga xam ni moom la Cheikhul xaaj Malick jëkk euh, def ca ndar Cheikhul Hadji malik nee na euh, dafa ñëw ci moom ni ko nun de dañu bëggoon tabaski waaye nag li fi nekk dafa barewul te doomu ndar bugguñu xarum pël-pël te li fi nekk xarum pël-pël la man jar mu ni ko ah ñaataa fi nekk mu ni ko nangam mu ni ko ah, xaar ma seeti ba mu demee yàlla dogal mu indi mu indil ko xar moo xam ni ba muy jóge fa mu ko jënde ba bi muy àgg ndar guddi rek lay dox ndax xar mi réyaayam dafay bañ graisse ki ci biiram sonal ko guddi rek lay dox bi ñu agsee mu ni ko morawaan foo jëlee lii ku la lebal mu ni yàlla ñuy waxtaan di waxtaan mu ni ko yàlla dogal na am naa xar ba andi la ma joxoon mi ngi nii relation boobu jar na xolaat du relation bu ndaw ñaari sët yëpp war nañ ko jàngataat ñaari sët yëpp war nañ ko jàngataat jàng jàngit woo xam ni xolal lii nga xam ni Cheikhul Xaaji euh, Mouhamadou Lamine wax na ko junj na ko ci delloo jagsaaw ca dikk woo ko Cheikhul Xaaji Malick bàyyi woon kenn ku nekk xam na ni. mbooleem taalibe yi aju woon ci maam El Hadj Rawane radiyallahu ca Kër Samba Kanak ca Mbaba Garage ca nu mu tuddati xombal ak amul fenn fenn fu taalibe nekk lu dul Baye Laaji Lamine jëli na ñooña jël ay P45 xale yi duñ ko xam waaye mooy mooy vingt tonnes yii rek ñu def ko ay ay gopp ak i mbooloo ba ñëw bay bay jag saaw delloo ko ci cosaan la kon dama bëggoon wax ni sa maam jooju Sonko. sa maam jooju mbay du maam joo xam ni dañ koy yóbbaale dafa jeex ak takk Cheikhul Xaaj Malik Si radiallahu taala anhu ñu ñaan nag sëriñ bi ñaanal la ñaanal itamit sunu doom ñaan goo xam ni lii nga ca wax lu am solo la yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla dafa ne ko sa gaay yi ni ñu mel ak yow ni ñu mel ci seen biir du yow mana a waaw wa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi niamati ixwaana man yàlla man maa ñëw jë neewul maa takke Ousmane Sonko ak Abba Mbaye ak keneen ku mu mën a doon ci njaboot gi ba ñu nekk benn déedéet dafa ni maa takke seeni xol wa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum ñu mujj nekk bi ne bi niamati xéwaru yàlla ixwaanan di ay bokk loolu nga ñaan sëriñ bi dañ la ko ñaanal ba dara du xaj seen diggante wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.